alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu feetu bi Kossy feetu bi wax uh, inna si uh, damm-damm bi nga xamante ne ni wàcc na fii ci kër Mawlana Cheikh Ibrahima Fall di bànqaas bu rëy di koo xamante ne ni kenn du nattable liggéeyam si yàlla waaye kenn du wax tamit taalibeem si kër Mawlana Cheikh Ibrahima Fall jëf ji li muy rëy rëy rëy si kër Mawlana Cheikh Ibrahima Fall noonu la ko mel si kër Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba sos fi loo xamante ne ni rëy na lool te loolu yëpp nag kàddu gi si kilifa gi ñu jàkkaarloot njaboot gi ñu jàkkaarloot suñ sëriñ suñ lépp di Mame Baye Fall tey nekk koo xamante ne ni fu mu mënta jógee ko waan si Medina Baye bu wàccee ci kër gii la si Abdoulaye di wàcc wàcc fi ak mbooloo mu am doole waaye wàcc si it ak taalibe waaye wàcc siit it si ak bëgg euh, sëriñ ñam di Mawlana Cheikh Ibrahima sëriñ bi tey biñ la fekkee fii xol yi fees nañ waaye nag bëggaat nañ nga delloowaat taalibe yi si yàlla ñu gën a muñ gën a dal ban nga am si ki nga xamante ne tey sa taalibe la sa lépp la di Cheikh Abdou Wilane ñu koy gën koo xam Cheikh Abdou Barhama si mbëggeelam si Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. bismillah bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam yaa himata cheikhi axtilna fi asal wal taftin bi nastarin taatilna bi safar wa baad mbokk yi ñu ngi wax santaane bi yàlla alquran dafa wax ne ñi nga xam ne bu leen musiba jotee ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna su ko defee baat yooyu suñ ko waxee te dëggal ko la cay tegu mooy ulaayika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma ñu ngi wax bokk ñun ñëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna di sant ñëpp ñu wax ko ndax musiba la damm-damm la waaye xiiwal la araab dafa am neexmatu ak neqmatu neexmatu mooy xiiwal goo xam ne yàlla fa ko wàccee ci sa kaw nga man cee yokkoo man cee defaroo sa zaahir ak sa baatin gën cee baaxee loolu neexmatu la waaye safaan ba safaan ba kii nag demam gi duhut neqmatu waaye neexmatu la ndax dund na dund goo xam ne gàttut délai bëggoon nañ mu gën ko gudd waaye lim ci liggéey <clears throat> suñ ko seetee danañ gis ne nit dund na téeméeri at ak nangam te mënoo ko liggéey lim liggéey ci dundam ki eh, Cheikh Abdou Barhama muy Cheikh Abdoulahi Wilane nit la ko xam ne yàlla nga ko dimbale jaarale ko ci suñ mbokk mu ñuy wax Tayib Ba mu taseeg moom ca Saint-Louis biñ tasee ca Saint-Louis mu waxtaan ak moom loolu moo ko indi mu ñëw Kossy ci Cheikh Ibrahima ba mu ñëwee ak ñim xàndat ba dem Kossy ba tarbiya bàyyi dem fa kosi sama baay bulen cibai, ci bay bay na ah xanaa da ngeen may won ne Ibra fala mom faydu bi man ne mir na ngeen rom ma ñëw fi bon loolu ndimbalal yalla la ci abdullah wiran ni la la mbir ma mu ñëw ci Mayoro rafal me xamne ci ñi ñak namp ci Cheikh ibrahim radiyallahu anhu ci la bokk doo su fekkoon ne géej la dañuy wax ne est-ce que ëpput Atlantique ci xam yàlla moom Maayara Fall yàlla dimbale ko nag mu dem ca géej googa naan fa ba fem xemut foofu waaye xikmatu boo xam ne yàlla def na ko ci euh, Maayara Fall mu ne Cheikh Abdoulaye Wilane mii mooy seen mag magam taalibe te boobu Baye Barté Kébé ngi fi sëñ Muxtaar Ka ngi fi ñeneen a ngi fi mu ne Abdoulaye mi mooy seen magam taalibe su ko defee mag mi nag coupé ko mag mi nag wax dëgg yàlla dimbale ko woon ci loolu ndax boo xàndee ñoo xam ne dañ laa jiital te jiitu la fi su boobaa man ngaa xam ndimbal ci ñoom bon Sëñ Abdou Lahad ku di ku dimbandikoo la bàyyi paate kebe moom nga xam ne sëñ Moxtaar nee na bu fekkee xam ne kenn ku xam yàlla bàyyi paate kebe la bu ko xam maa ngi rafaal mu ne bàyyi ket paate kebe lay wax kooku nag buñ ko jiitalee bàyyi paate kebe nekk dimbalam di ko dimbale dem ba foofu di ko fa fekk si fekki si Kaffrine di dikk fii muy dikk fii mu di toog moom di waxtaan ak moom di ko dimbale bon tànk yooyu ci la taxaw mu sax lool nag fees dell lool baax lool xam fii muy jëm si fan la xam bu jógee lan la war a indi jàng lool ba nekk géeji géej ci xam-xam bi mu dikkat xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin ba mu dikkee ba gis li Baay wax ne moom la sampee PM bi mooy jàng jàngale jaamu yàlla liggéey mu doon ci boor bu nekk ci ñeenti mbir yooyu bàyyi tudd mu futteeku takkaayu ca ba nekk ci alam boo xam ne maanaa drapeau boo kane ne dañuy téen ko seen ca kaw dundam yëpp jàng ak jàngale la ko def ak yare dundam yëpp liggéey la ko def barki démb rek damaa jooyee ko ci jumaa ci jenn jigéen galan ma ne ma ah doom dimbale ma ma ne ah mu waa kër de dañ ma wax ne Abdou daan joxe na fi lim daan joxe sàqam baay mi te xeeg si wut sama kër mën a ko yàlla rek a mën a dajal <coughs> yàlla rek moo mën a dajal bon dafa toog ba seet waxtu bi nga xam ne ñëpp dañuy soxla mag tuuti gone dara mu indi fi sàq moo xam ne dafay wër ci dëkk bi ñu ngi sant yàlla ci loolu bi mu ko indee jikkooy maam Ibra Fall la ci jëfee maam Ibra Fall daf daan indi ganaar yi moom Mohamed Diouf mi wax na ko maam Ibra Fall daf daan wuuti ganaar indi su ko dee bu ganaar yi xasee ak si ba mu déclaré ko bàyyi rek dootut toog dafay dem xuuti xaat balaa lii di jeex na fekk leneen dikk waaye ñun ñi ci kër gi ganaar dana fi duñ ko ñemee rendi su demee ba nga xam ne sonn na lool bu ko wax mu ne hee yéen a ko xool waaye man de xooluma ko su demee bay waaj a lañ koy door a sànni ci waaw si Abdoulaye bi daan daan ñëw jàng siire boobu. Hmm? ca buntu kër sëñ Haadi fa taxaw sëriñam ki nga xam ne moo ko taxaw ci zaahir taxawu ci baatin ci xanam goo xam ne ñëpp gis nañ ko mën nañ koo seede waaw su ko defee kër maay rafal gii benn saako sax du ko fiy dugal ndax jàpp na ne lii njaboot ak bàyyee ko moom njaboot ak bi rafaal ci soxla loolu ñu ci ciy sant yàlla bon loolu dar subu ko yàlla jàngal la sëñ Abdoulaye Wilane ci wàllu xam-xam ci wàllu yare dañ faa dem. xale yu jigéen ñoo takkaayu di miraas miraas moo xam ne ci jotaay ba ay masail fiqhiya ci miraas ci maanaam miraas bunt yi gën a jafe la bokk ci su waaye ay gone yu jigéen ñoo indi masala yu jafe ci fiq ci miraas di ko tasaare façon boo xam ne def ko wàllu théâtre dëgg-dëgg ku yóbbu ay jigéen bañ xegg foofu yeneen yu sew yu wax yu noppi bon say Abdoulaye Wilane Euh, dem na waaye demut demut ndax xamoon na xamoon na fii mu ñëw xamoon na fii mu ñëw fan la muy madinatu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mooy masta markasul ataaya su xasee ne cipput ci dëkk bii tànkam xamatul mbaxana mu muy sol xamatul dàll yu muy sol ndax dafa sew-sew yi la ko yàlla xamal benn gan dafa jóge ko fu sori xamuñ kan la sax ba léegi gan gi rek la ñuy wax feebar fam feebaree mu jógee fa di wër di wër di wër faju ci docteur ci Gambie faju ci docteur ci Sénégal yi fi të yaram wi xar rek di sotteeku di def ay taab rek di xotteeku rek di sotti ndox mu tàng jër xam ko ne ko demal kër Sidi Ibra moom xamul sax kër Sidi Ibra fan la mu laajte fu ne ñu ne ko Kaolack la nekk mu dugg oto wàcc garage Nioro na kër Sidi Ibra ñu tegtal ko yoon mu ñëw ba xegsi bi mu xegsee ci sens boo xam ne war nañoo nettali loolu mu tombeeg Baye Ibra loo bàyyi soxla na ko mu daal di dem ba muy dem ñoom bu leen bàyyi xooxaan duñ sol dàll duñ sol mbaxana te dañuy daw mu tegunu rek bi muy ñëw bay dugg rek góor gi duggaale ci néeg Baye ba mu duggee sukk ci kanam baay Baye wax ko lam ko soxlaal na ko yóbbu yóbbuwaaleel gan googu. waxut ak bay ba mom gan gi jamlanté wut ak mom waxut soxlam mu ne ko gan gogu sa kër mu genn gis bay Ibra Lo ngi xamee tànki neen mu fokk dalami ñu ànd dox ba si kër bay Ibra Lo kër gi nekk ni penku kër maay rafal tok ba yor-yor muna ne ah sëñ man de gis na kéemtaan mu ne ah mu ko suma mbuus mo dama xamé ah, mu ne ko ay mbubba ci ne suma togan ben waxtu rek suma bu momu dana toy ngir ndox mi genné sama yaram wi bama duggé ci dëkk ba légui mbum ma fi duggé la xamé tooyut te tàngoor wi doon ne ci yaram yi yëgatuma ko te ndox mi doon génn itam tooyaloon mbubb mi bàyyi ba gannaaw affaire bi du doxee nag mu noppee rek ne ko ah yàlla day baax na ñu def noonu ba julli tusubaar xañ mu daal di xëñ mbubb mi ne ko xoolal góom yi de ñes nañ waaye bañ jullee gexe waaleykum salaam bañ jullee gexe ba pare mu ne bàyyi loo man wéet naa te suma njaboot gi xamuñ fu ma jëm bon damaa bëgg nga xewi ma nga ànd ak ci sëriñ bi bu subaa mu xewi ma ma nit ki ku xamul rek doo xam lu bari ba mu yegg si ba dugg si ne mën a bàyyi asalaamaaleykum aleykum sëñ bi ñaanal ma ñibbi man kat suma yaram wi wéet na te defaloo sax dara waaye wéet naa ñaanal ma ñibbi. bàyyi na ko ah, xanaa xamoo ne suuf si na sax saafara la kàddu googu Abdou Wilane daf koo xam du sol mbaxana du sol dàll xanaa xamoo ne suuf si mbir na sax saafara la lii bàyyi bi moo ko jëlee ko ci bàyyi. moom ma ko nettali man ma nettali ko si Abdou Waayaan xam naa déggee na ko feneen ndax ku jaxasoo ak mag ñi la bon fii mooy markazul ataaya centrale ba ca kawoon li muy gàll ci ay kilowatt benn appareil xattanut ko foog ñu def ay dynamo yoo xam ne moom mooy recevoir courant bu rëy boobu su ko defee kenn ku nekk nag booy def demande ya nga xam ne moom nga bind na moom nga xam ci appareil ñu yónnee la lu tolloog sa appareil yooyu du du doole te du lakk bon foofu mooy fii ci Médina ci jamono yonant yonant lay do ci jamonoy xutbu xutbu lay dox te bàyyi mooy xutbu samaan bon fii la li yàlla sotti yëpp fii la moo koy tasaare sëñ Abdou bu bëggoon kët gu rafet gu muy dal mën naa tabax château fu ko bëgg ci Kaolack di fa dal waaye fii la daan dal ci kër Maay Rafal gi kër gu mutawaadi ak gi waaye nag xam na ne mutawaadi la ci kii waaye moo xam na lu mu ca gis bon ñun ñoo ko daan nekk ay mbokki taalibeem muy ñëw ñuy ànd di dal fii muy nit ku mag koo xam ne eh, liñ koy ñaanal yàlla mooy yal na yàlla jëflanteeg moom ci jëmm yërmandeem bi nit koo xam ne foxeewut dara ci dundam ba mu gindeekoo rek fa gindeeku waaw ba mu gindeekoo rek dafa gindeeku jaar ci buntab koo xam nag muy Maay Rafaal ba duggee ba taxaw nag yàlla dimbale ko mu gis doomi baay joo xam ne nim mel ci nachaat nim mel ci njàmbaar nim mel yàlla taqale ko muy Cheikh Ibrahima jamono ju nekk lu nekk dafa am lum laaj bañ demee ba ci jamono ji koo xam ne ku mën a jàmmoor la gouvernement la danaa def doo def danaa wax doo wax mu taxaw ne dana wax Cheikh baay wax na ne Cheikh Hadi taxaw ne man ak moom ci biir giri bi wala mu génn bon lu nekk dafa am ku ko man yàlla fu ko dimbale ku yàlla dimbale la ku yàlla may lu nekk mu am xam-xam ba ca xeel la sëñ Abdou ak ku mën a doo soo buggee xaalis boo ñëwee danga nga fa fekk lu la jox dafa teral njaboot ak bàyyi ak fu ñu mën a bàyyee ko dafay teral mbindee fi yàlla yi ak fu ñu mën a bàyyee ko fi mu ne sax Hausa yi jógee ko Nigéria di jaar par suuf bu ñëwee bay soo dañ fay def escale su ko defee lekk fa naan fa sangu fa noppalu fa door a continuer seen tukki ñëw fi bon moom bunt la boo xam ne. fokol xool ci mbax rek lama waxon ci Cheikh Tidiane dal man nako wax ci kii buntëb mbaax boo re da nga fekk ne mu nga ci chat sa ca njoloxton la ci somme ba da nga fekk ne mu nga fofu ci xam-xam nit la ko xam ku xam la ci joxe xam-xam dafa xam hikma ci joxe xam-xam ba nga xane misal bu la ko joxe ci xam-xam fay mel da nga yone masala bi musuma ko jang waaw masala bi musuma ko jang ngay wax waaw ni Cheikh Tidiane meloon ci fatwa daanaka Abdou Wilane bunt boobu la ko yàlla hubbil ci fatwa waaw nit la koo xam ne balaa ngay xam ne góor la nga góor góorlu yow ci xam-xam waaye bu fekkee ne jàngoo ba amoo xam-xam da ngay foog rek waaye boo xamee xam-xam ba nga xam ne yow jàpp nga ne yow am nga xam-xam soo taseeg moom ci ngay xamee ne kii am na xam yàlla dimbale ko nag kiir ko ci njub yàlla dimbale ko xiir ko dundam yëpp mu def ko ci liggéeyal Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu Baye dafa mës a toog benn jamono kët gi jamono gane ko koo xam bu la neexoon la doj yi waxoon yonent yàlla Muhammad ñu doj yi mën nañ la koo wax waaye soxlawut ko boo bëggoon ñu soppeeku urus neexeel la déedéet Baye nekk digg boo xam ne. xam ñetti fan yoo xam ne yaa as daawar moo wax ne cin lu bàyyi xéegal ci këram xéegut fa ah benn camion dikk boo xam ne dunda ca nekk ba mu taxawee rek bàyyi jël bindukaayam ak kër diw saako kër diw ñaari saako diw diw saako nangam nangam ba camion ba jeex takk camion ba départ waa kër gi ne foogoon nañ ne dana am lu dugg ci kër gi wala dugg ci maa ngi ba mu demee mu daal di waaxu dem ci moom yaa as daaw dem ci Baye Mar ba ba Baye Baye kii Amadou Thiam. moom mag la woon boo xam ne hakim la woon itam. bàyyi ko tuddee woon cheikhul islam. ba demee ci moom daal di nuyoo ne ko ah sëñ bi man de damaa bëggoon nga ñëw wax ak sëriñ bi. kër gi ñetti fan a ngi nii dara tàkkut fi cin gum taxal moom. camion bi taxaw ñëpp di yëxoolu mu joxe ko ba jeex bàyyi mu daal di ñëw ci bàyyi ba mu ñëwee ko ah sëriñ bi la nga ma yónnee woon xegsi na ndax moom bokk na ci ñi ñu yónnee ñu ngi sant ñu gërëm waaye nag a ah, soxna sa daawut kat daf maa wax ne kër gi dara dugg fa te ñetti fan a ngi nii cin luñ taxal yoo xam ne yaa ko taxal lu newut fa tàkkut fi bay ne ko ah Amadou kët gee yaa rek waaye benn pep génnut kët gi sëñ Abdou kët géeya soo demee dëkk yi dëkk yi nam ñam fa formé ñooñu continuer di forme kër gu yàlla goo xam ne waaye mu jàngaat loolu nag ba dem ba mu yàgg yàlla woon ko nag ne ko am na période boo xam ne àddina bi yëpp lay laal mooy uxsat mu daal di tànn nag dëkk bi di dajale Sàqambaay di ko dajale ci xanam yi nga xamee ne ci xikma la koy dajalee ba mu bëri lool ay camions yi camions ñooy ñoo tabaxu fii mu di ko tasaare ñoom ñoo indi seen liste sa bopp ñooy bind léegoo léeg ni ne ma waaw sëñ bi yow nangam ma ne ko déet loolu bokkut ak bu Cheikh Cheikh Tidiane bi de boobu bu sëñ Abdou bi la ni muy doxee sax xaw ma ko ñoom ñooy indi seen liste ñoo koy joxe bon dafa ñëw laajte laajte laajte ba xam fu ñaseen ñaseen nekk ak lu mu yàgg yàgg dana koy fu nit ku ñàkk nekk ak lu mu ruq ruq ruq lu ñàkk ñàkk dana fexe ba xam ko di fa wàccee ay saakoy ceeb ay saakoy mboq hmm? ci xanam goo xam ne nit ñi dañ koy soxla lool ci waxtu wuñ ko soxla lool bon loolu ndimbalal yàlla la yàlla bu la dimbalee daal euh, daf lay euh, téeñal waaw yëf yi euh, dafa lay yomb lool def lu baax di liggéeyal na bàyyi ci xam-xam liggéeyal na bàyyi ci defar jaami yàlla yi moom ay waxuñ ne ta ay téere la taalif waaye ay nit la taarif yoo xam ne kenn ku taxaw rek téere nga xataa jigéen ñi sax ku ci taxaw rek téere nga bon moom ay nit la taalif ay nit la defar moom moom Abdou Wilane moo fi nekkoon moom kenn ba muy taxaw moom kenn taxawoon fi mu ne ay junne junne Abdou Wilane a fi bon maa yaakaar ne mën nañoo soppi sax baat bi au lieu ñuy wax ne si gil ndigaale ñu ne ndokkale ko ndax su fekkee ne yàlla dimbale na ko mu ànd ak wet dugg dund fi dund gu yàgg gii jàngale fi jàngaleen wu teey wii mën a jëflanteeg sëriñ mën a jëflanteeg taalibe ku mu fekkoon ci taalibe fexe na ba daw la ba jéem la raw ñi nga xam ne ñoo ñëw ci gannaawam fexe na ba nga xam ne tàng bu nekk ñu ngi koy séen di ko jéem a dab bon kooku bu dundee dund gii liggéey fi liggéey bi te dara yàqut fi ñun dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy ki ko yenkiwal njub gii wal ko xam-xam bii jaarale ko ci yoon yu rafet yi loolu jëmmi yërmande yàlla jala yan na yàlla ànd ak moom ci jëmmi yërmande ji dimbale ko sutural ko jéggal koy rëcc rëccam dëkkale ko Seexu Tijaan ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Maulana Cheikh Mouhamadul Haadi Ibrahima ak mboolem njaboot ak bàyyi nga xam ne jiitu nañ ak ñi nga xam ne danañ jiit dañ ci topp yan nañ bokk fu ñu dëkk ca gën caa ko lii na yàlla mën na loolu yan na ko yàlla def yan na ko yàlla dëkkal ca bar sàq Cheikh na Ahmed Tidiane ñu ngi ñaan yan na yàlla teg loxoom ndimbal xool bëtëb yërmande ci li nga xam ne mooy njaboot ak doomi sulbu yim fi ba ak doomi roxo yim fi ba samp bii yàlla bu mu yàqu yan ko yàlla téyal boppam lu ci nekkoon ci rëkk-rëkk yan ko yàlla jubbanti lu ci jub kocc yan na ko yàlla téyee ba nga xam ne dar dootu ci yàqu yàlla mën na loolu yan ko yàlla def ñu ngi ñaan yan na yàlla xool bëtëb yërmande ak bëtëb ngërmande ci liggéey bi nga xam ne liggéey na ko njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi muy doomi roxo yi nga xam ne moom moom la yar ak doomi sulbu yi nga xam ne ñoom la jur yar leen yan na yàlla teg ci ñoom loxo bi yërmande ak bëtam ndimbal ba nga xam ne fi seen baay xeggoon ñoom danañ daw ba xegg fu passé foofa yàlla mën na ko ndax yàlla ngi ñuy wax ci alquran ne maa nan sax min ayatin aw nun siha naati bi xayrin min ha dafa xew ko dafa baaba lamin mii mën na maa dégg wala ñu déggal ko wax ji bon fu ne ragalu ma koo wax ka nga xam ne moo toog daal di wax kàddu mu jox ma loxone ma nakamu man ku len di bakel la duma len nango jitu ma tek tekk ne ko ah mu ne ma mana sax ma tek munuma jangal ne ma jàngal bayi sax min ayatin aw nun sayanaati bi khair min mu ne taxawal bàyyi bëggul mislaa rek la bëgg yalla bëgg nako mom fi ko rek ke yalla indi ci kemtanal yalla ku gën ko ka fi bàyyi ko lay doon doy baabaa ko wax bon ñu ngi ñaan yàlla benn xabdu moo dem yenn millions yi xabdu taxaw yoo xam ne taxaw bu gën a rafet taxawaayam bale lay doon yàlla mën na loolu yal na ko yàlla def ñu ngi ñaan ña nga xam ne eh, ñu ngay yuuxu di daanu nañ xam ne muñ muñ ca saddin bu njëkk bala bàyyi leeralal ñu ne yàlla dafay wax ne eh, su jëlee benn kum bëgg kuñ bëgg dafay xebal malaaka ne ko demal seetal ma ñële jël naa seen daggitu res seen filsatul kabdu ana nuñ def su dikkee ne ko fekk naa ñu muñ fekk naa ñu lu ci yàlla fekk naa ñu xam ne yaay seen borom fekk naa ñu xam ne li nga jël yaa ko moom la nga fa desali xaale itam yaa ko moom su ko defee mu ne bégal leen ne maa ngi ànd ak ñoom su ko defee maayatullaahi mooy xàndoox ak yàlla looloo gën lu nekk fi mu nekk nii Cheikh Mahi mii ku fa demoon toog ñu ñëw portale la ak moom da nga woon portale woo say xarit demet nag nu waa ji gën a fooree ci gis-gisab nit ñi nga ànd ak ñoom ci ni ngay gën a bëggee euh, photo boobu ñëpp gis ko bon nag suñ ni ko yàlla santaane ñu ngi ciy jëlee ñun àndoox ak yàlla ci boppam inna allaha maa saabiriin bon yéen nañ ci jëlee may nañu yàlla may ñu muñ ko muñul wu rafet nga xamee ne noonu lañ muñee saalihiine yi nga xam ne ñoo jiitu ñu ngi ñaan yal na yàlla muñ la ñoo noonu waaye ñu ngi ñaan yal nañ yàlla àndoo ak ñun ci àndoo boobu àndoo ci muñ googu àndoohin woo xam ne danañu ci dee lépp lu jafe ñu ragal ko rek yal na ko ci yàlla dàqee yal na yàlla dugg ci xol yi yal na yàlla jëflanteeg jaami yàlla yim fi ba doomi rox yi ak doomi solbu yi yal na yàlla jëflanteeg ñoom teeb leen loxoom ndimbal xool leen bëtëb yërmaande loolu soo amee kenn ku nekk fa nga war a tegu da fa tegu yal na yàlla def loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullah